asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne saa bu ñu jógee yéen tax ñu jóg defe naa ne am na loo xam ne kenn dootu ko naatable nee naa leen ñu ngi biir Sénégal waaye teewul tamit kaddu yi tamit foog ñu koy naatable ndax defe naa ni doomu adama lépp loo xamante ni yow ak sa moromu nit yéen a ko war di jëflante dafa war a nekk kàddu yoo xamante ni defe naa ne bu ko doomu adama déggee war see mën a jariñu gaay yi gàmmu gi jeex na gàmmu nañ ko ci jàmm comme ni ñu ko defee woon ci màggal Tuubaa bi defaat nañ ko tamit ci gàmmu gi waaye gàmmu gi tamit noonu lañ ko defee tamit neex na waaye jeex na mais gars dafa am lu xew ci réew mi dafa am kàddu yoo xamante ni nag dañ ko waxtaanee waaye dafa am kilifa goo xamante ni dafa génn mu am kàdd yoo xam ne da koo yëkkati kàddu yi mu yëkkati nag c'est Moustapha Sy gàmmu gi Ousmane Sonko dem na Tiwaawan am na nag ku fa fekk koo xamante ni moom kilifaam la aussi moom moo ko waroon a dalal. waaye teewul sëñ Moustapha Sy dafa am kàddu yoo xamante ni ay discours la mu yëkkati ko jagleel ko ki nga xamante ni mu di Ousmane Sonko ba am kàddu yoo xam ne yëkkati na ko wax ko ci kaw Ousmane Sonko. ñii ne kàddu gi kat sëñ bi wuru ko wax ñii ne kàddu gi kat sëñ bi da ko war a wax léegi nag li ci ëpp solo ba ëpp solo nag mooy kàddu askan bi la. dañuy ñëw jël askan bi waxtaan ci ak ñoom waxtaan ci ak ñi nga xamante ni seen xel foofu la toll ndax dañ ne réew kaddu askan la nañ ko jox askan bi ñu waxtaanee seen kon sama caméraman noonu la ñuy def. comme ni ñu leen ko waxee rek nee naa leen ñu ngi ci kàddu askan bi ba léegi dafa naan doomu adama kàddoom la am waaye tamit doomu adama tamit jëfinam la am nijaay ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax alhamdulilah tur bi naka la. Mahfouz. Mahfouz. Mhm. ah daa daa daa mel ni beneen Mahfouz la est ce que est ce que plateau tur bi. déedéet déedéet laa tudd. Ah. <laughs> Mahfouz laa tudd moom laa tudd ah mais nijaay tey jii ñu gis ni tey jii euh, lu jëm ci li nga xamante ni moo di gàmmu génn nañ ci màggal Touba bi génn nañ ci gàmm gi lu toll ni bisub gàmm bu njëkk ba dañ daan waxtaanee li nga xamante ni mooy li jëm ci wàllum diine waxtaanee Seydina Mouhamed waxtaanee kilifa diine yi waaye tey gàmm gi dafa am leneen loo xam ne doo ko wutee mooy sëñ Moustapha Sy kaddu yi nga xamante ni ko koo yëkkati jagleel ko ki nga xamante ni mu di Ousmane Sonko est-ce que kaddu yooyu doon la kàddu boo xamante ni loolu lañ doon xaar ci gàmm gi mhm. waaw loolu day xalaat bi ma ci am comme bépp Sénégalais rek yaakaar na Sénégal war nañoo gën a bàyyiwaat xel suñu bopp gën a bàyyiwaat xel sunu mag yi nga xam ne ñoo sunu kilifa diine li ñu bàyyil ndax bu ñu demee ba lu toll gudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu wàccee jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kan ci yan circonstance la ñu lee diine ak ci yan anam la ñu ko bàyyilee ak sunu mag yi nga xam ne ñoo daan sonn ginnaaw loolee bi fi yonent bi jógee war nañoo gëstuwaat bu baax lan mooy histoire gàmm ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ban message la ñu bàyyi bu ñu demee nag bay tëkkalee njiitum réew wala premier ministre wala opposition wala parti pouvoir naan gàmm ak diw yaa problème gàmm diw y' a problème ndax maanaam si ma la koy gàttal. mi ngi mel ne nga ne Bassirou Diomaye Faye wala nga ne Macky Sall wala nga ne Ousmane Sonko ak gàmm. kon yaa ngi méngale daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ak nit kookee te Sëriñ Tuubaa dafa jàngale ci maqaamaatul xayril xalq an xayri bi rabbihi muxayyabatun faltaqar an suratul najm kon yonent bi sallallahu kooku amut ku mel ne moom ndax jàngalaat na ko ci lam yabdu mislal Mustafa Muhammadi sirran wa jahran fil man ngaa dem di noppal ndax ku mel ni moom dootu ko am te yàlla mi ko bind dootul bind ku mel ni moom ci lu ne waxuma ko ci moom laay tàmbalee ndax yonent bi du kenn te kenn du moom kon bu ñuy wax ci gàmm dañoo war a wax ci yonent bi sallallahu misaal bu gàtt rek gis nga waa Touba côté boobu dañ ci am dañ ci am de boo xam ne gis nga bu dee màggal lañuy woote doo dégg ñu ne sëñ Tuubaa ak diw sëñ Tuubaa ci moom la ñuy yem minal xadiimi ilal xadiimi sëñ Tuubaa la ñuy commencé sëñ Tuubaa nga bëgg a jël gàmm bëgg a jël sëñ di ko méngaleeg Yonent bi bi sala salam warut waxuma nga jël sëñ Tuubaa di ko Yonent bi benn sëriñ warut rawatina nag nitu àdduna nga xamante ni politicien la loolu moom ñun ñun ñi nga xamante ni dañuy yëngu ak néew ci côté boobu ñu ngi koy koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla ndax rafetul te warul ndax Sénégal ku ne xam ne ne dëkku dëkku diina la dëkku tamit layit la ndax dëkku boo xam dañ naan quatre-vingt-dix pour cent yoo xam ne ñëpp ay julit lañ dix pour cent yi des gëm leneen kon ñëpp ay way gëm lañ kon nag ñu leen di wax nañ leen wax ci li ñuy gëm buñ demee nag ba jamonoy campagne jamonoy élection boobaa ku mu neex mën ngaa faral kala neex wax ca moom lala neex wax ca moom lala soob ndax jamono boobu lañ toll buñ toll de jamonoy politique ñoo xam ne jamonoy politique la jamono yu religieux nga xam ne Sëñ Tuubaa wala alaaj Maam Alaaji Malick wala Seydina Limaamu Laay nga xam ne kii la ñuy màggal bésam moom la ñuy fàttaliku nañ wax ci loolee ngir jëmee yàlla ko yeneen ndam te di yóbbu ci cérémonie di waxtaane kilifa jàmbur ndax loolu day xàjjale ay mbooloo ndax ñi nga xam ne ànd nañoo parti pouvoir dañ naan ah kon suñu kilifa gi nekk gën naa nekk jàmbaar ñi nga xam ne dañ laa xaw a contre ci côté boobu dañ ah suñu sëriñ bi de weer na lu toll ne jour gàmm yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga war a wax ci yonente bi di wax ci keneen kon ku nekk sa dégg-dégg léegi ci loolu lii gën a rafetal jàpp naa ci sama xalaat bu gàtt man dégg-dégg boobu pour nga mën a boolee ñëpp comme ñëpp ay way gëm lañ ndax boo nee yonente moom ñu ñëpp ko bokk jullit boo nee xasane ba ne jullit murit tijaan xaadaru ñu ñëpp bokk yonente bi sallallahu alayhi kon li gën a yell bu yegseetee ku ne ci am ànduma ci guddi ci benn leaderu politique man d'accord ci loolu sama point de vue la li mooy guddi yonente bi sallallahu alayhi bañ nañ ko ba moom lañ ko jagleel nañ wax ci moom ndax am na ay jikko yu bare bare bare yu ñu war a roy ci moom yoo xamante ni du jeex du xaaj man jàpp naa loolu ëppoon solo fuuf di wax ci diw li mu defar Sénégal diw li mu defar premier ministre diw li mu defar président loolu am na solo waaye du foofu du palaasam. foofu waxu sëriñ kese la. am fu muy dugg nag danga koy dindi sëriñ nga teg ko euh, euh, comme. politique politique waxee euh, kilifa politique. donc man pour man foofu laa ko. léegi nag li ñu sekk ñoom ñaar. Ousmane Sonko bu fekkente ne moom mu ngi dégg li mu Moustapha Seydi wax. mais mais na delloo naar naar bi xoromam rek. mu delloo naar bi waaw na delloo naar bi xoromam. léegi léegi Moustapha Sy nee na. nee na jàppale na ko. donc euh, Ousmane Sonko naa kaa aller parler avec lui et puis voilà fi mu nekk nii moom wax dëgg yàlla dëkk bi dafa dëgër et Diomaye aussi doit prendre ses responsabilités être le président de la République. Mm-hmm. Euh, ne pas rester la à être sous couvert d'une autre personne. man loolu lay ñaan après li ci des nag euh, Sénégal mu ngi si euh, nu mu tuddati wolof bi nag da may baal. adunaa ngi suñu kanam. peut-être d'ici cinq ans wala d'ici deux ans trois ans peut-être dina am changement. bu bu ñu bu ñu jox Ousmane Sonko assemblée nationale bi nag. nga ni yi bu ñu jox Ousmane Sonko assemblée nationale bi. en tant que premier ministre. déedéet buñ ko jox assemblée nationale de. lu tax loolu. waaw yow man majorité bi na na doon opposition comme ça affaire bi xaw a xaw a équilibre tuuti mais yu yuñ ko joxee assemblée nationale muy buum di bummi problème lay doon ci Sénégal man bon sama gis-gis. sa gis-gisu bopp. voilà sama gis-gisu bopp man gisuma ñu jox ko assemblée nationale. loolu daal nga gis waaw man loolu la. nee naa leen kaddu askan bi la ñu nekk ba léegi itam ñu ngi ci terrain bi doxtaan kiñ ñu toogal nii nag suñ papa la joo xamante ne nag dañ ko bett waaye dañ koy bàyyi tamit mu présenté wu papa ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu wér a wér a wér a wér a wér. bàyyi a baax. ñu gis ni tey jii ci réew mi tey lañ war a waxtaanee tuuti waaye nag balaa ñoo dugg tamit di gën a xuus tuuti dafa am kàddu yoo xamante ni tey jii dañ cee génn génn nañ ci màggal Touba génn nañ ci li nga xamante ni mu di gàmmu gi waaye tey kat ñu gis ni kat lu toll ni bisub gàmmu foo xamante ni bërëb la boo xamante ni lu jëm ci wàllum diine lañ fa doon waxtaanee tey jii ñu gis ni sëñ Moustapha Sy dafa am ay kàddu yoo xam ne da koo yëkkati jagleel ko ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko sëñ bi kàddu mu yëkkati fa mu ko yëkkatee est que yoon la mu yëkkatee ko foofu. Ah, maa ngi lay sant bu wér a wér di la gërëm di la dolli ne la sëñ Moustapha Sy citoyen sénégalais la am na droit lu ko naqari ci réew mi. mu wax ko wax dëgg yàlla am na droit lu ko naqari ci réew mu wax ko. am na droit lu mu war a wax président taxaw jàkkaarloo. ndax àdduna bi amul benn solo. te ñun ñëpp ay sénégalais lañu. te Sénégal Sonko mooy premier ministre tous les sénégalais. Diomaye mooy président tous les sénégalais. kilifa nag bu fekkee ni président def na lu mu war def wala premier ministre def na lu mu war a def ki nga xamee ni yow taxawu nga ko ndax keroog ba ñu jëlee Sonko. fañ ko tëjoon yóbbu hôpital am na la ci sëñ Moustapha def taxawaay bu rafet rafet rafet man da sax dama ci kontaan vraiment ne sàmmal leen ma ko téel leen ma ko ba docteur ba nga xamee ni sëñ Moustapha koy yabaloon daa mujj di fanaan hôpital di sàmm Sonko kon nag am na loo xam ne saa yoo ko gisee rek wax dëgg yàlla am na lu tax nga guddig yonent bi yonent bi képp moo ko moom képp bokk ko kenn. bokk ko kenn waaw. ku ci nekk am nga seg màggal am nga selib waaye buñ nee guddig mawlutug nabi nabee ko moom lañ kay war a wax lu nañuy wax jaar jaaru nabi ndax mu mën a defar suñuy jikko suñuy jikko mën a defaru waaw loolu moo ci sama xalaat côté boobu tey oh, comme tey nee nga loolu mooy sa xalaat mais tey ji lu toll nii euh, bis bi mu nekk bis boo xamante ni premier ministre na fa tey ji bu fekkoon ni tey am na kàddu yoo xam ne da ko war a yëkkati di ko waxal moom di ko wax Ousmane Sonko est-ce que waru ko woon a defee ci beneen anam bu dul ci biir baas boo xamante ni fa la ñu waroon a waxtaanee waxtaanu yàlla ji. <laughs> ah loolu de moo gënoon a jekk moom loolu de gën a rafet dem ba ca ne ko nag soxla naa la sama xalaatu bopp de laay waxee soxla naa la xam naa ni Ousmane Sonko oyof na oyof got xam ne bu ko waxoon mu sekki ko seeti ko waaw. waaye nag xëy na noonu la ko mën a doxale waaye wax dëgg yàlla de gàmm gi daal ku ne xam na ni euh, euh, Mouhamed ko moom. Mouhamed daal la ko mooy borom gàmm gi lu ñuy waxtaan nañuy waxtaan jaar jaaram. ñun ñii di ay jullit. te bu ñu sunu borom bindee. Mouhamed tax mu binduñu. ñu mën a jariñoo ci Mouhamed tax guddeem googu. ndax luñ ci raw rek bénéfice la. mais pas de euh, politique ci bis ci ay guddi gàmm si moom du xalaat. dégg nga ko nee na politique doon na kàdd goo xamante ni bokkut ak kaddu politique guddi la guddi goo xamante ni bisub yàlla lañ ci war a wax ah, bisub Seydina Mouhamed lañ ci war a wax ndax moo tax tamit tey ji ñu sàkk ñu waaye papa tey ji am na sànq loo ma doon wax ci suuf bu loolu weesoo dañuy sant tam di la gërëm ndax sa oyof bii nga oyof waaye teewul tamit am na kaddu yoo xamante ni bëggoon nga koo yëkk ci mu nekk ci bërëb bi nga xamante ni fii yéen a fi daan toog di daan seen doole nga xamante ni ay camion lañ fi daan fekk ak ay ngooñ yoo xamante ne yéen a ko daan jaay di ci tedd tey ji ñu ñoo defaral leen ko nii ba mu rafet waaye tey ji lan moo doon tey ji seen problème fii tey. xanaa ñu dimbali ñu rek utal ñu fu camion yi gaare ndax boo xoolee nii camion yi nii ñu gaare nii lii rafetul defar nañ fii ba mu rafet waaye camion yi amuñ fuñ ci gaare ne daanaka ci biir koñ yi lañ leen di gaare. yenn yi ñu gaare leen fii ñu nit ñoo ngi nii toog fii lañ suñu clients yi daan fekk suñ ñu dimbali woon daal may ñu fu ñu suñuy camions yi di gaare bu soobee yàlla daal loolu moom na doon lu baax a baax a baax wax dëgg yàlla. waaw mais tey jii père moo leen jëlee fii ba ba ban meeri moo leen jëlee fii. mairie waaye ñu fi jëlee. bu ay Aïdara waaw. kon tey ji comme que moo leen fi jëlee tey ji defar ko nii tey ji ba mu taaru waaye teewul tamit yéen tamit am ngeen droit tamit wax li nga xamante ni moom ngeen soxla yan kàddu ngeen lancé ki nga xamante ni moo di Ahmed Aidara mi nga xam ne moo leen fi jëlee tey. Ahmed Aidara. sa mag mbay ñi ngi de moo lay ñaan. di la ñaan. ndax Ahmed Aidara ñoo bokk fenn fu ñu jëkke xam na ma bu baax a baax mu fi ñëwee aussi wax dëgg yàlla di ñu avertiser pour ñu jóge fii wax dëgg yàlla dana kii de sama grand la waaye ñun de dañ lay ñaan ñun waa Canada. wax dëgg yàlla di la ñaante yàlla rek tax nga seetal fii ba ba euh, rond-point gàddaay ak fu mu mën a doon fu ñu mën a nekk place bu ñu mën a nekk te moom ko man fay sotti suñuy béton mën fay sotti suñu suuf nga dimbali ñu rek ndax ñun ñëpp daanaka ay borom kër la mag ñu fi sosoon jóge nañu te fii daanaka dem jóg euh, nekk nañ fi lu jege ñeent fukki at def nañ ko fii waaw nekk ñàkk nag fu ñu jëm moo tax bu ñu xëyee rek amuñ fu ñu jëm fii rek lañ xam xamuñu feneen moo tax bu ñu xëyee rek ñëw toog waaw soo ñu mënoon dimbali bul seet ci leen seetal ci ñii samay waa kër lañu. samay waa kër lañu ndax wax dëgg yàlla man li may seede ci yow ñoo bokk koñ waaye corona bi mu ñëwee ndimbal yaa ngi ca doon def xam naa ko. gis naa ndimbal yaa ngi ca doon def waaye nga seet ci yàlla te wutal ñu fu ñu dem daal suñu amoon am daal mu gën wax dëgg yàlla damaa mënuta nag jàkkaarloo ak yow di la ko wax ndax mënu ma laa gis fenn ba di la ko wax ndax waaye nag li nga xamee ni yaakaar naa bu ma ko waxee nga jot ci ma lay ñaant yàlla rek nga wutal ñu fu ñu jëm. macha allah euh, monsieur le maire ay Aidara dégg nañ sam papa tamit li moo xamante ni yëkkati na ko wax mu nekk ay kàddu kon de naa ne askan bi lii rek la waxtaan nañ waaye teewul tamit bu ñu bërëb bi nga defal ñi nag lu rafet la sénégalais yi ñëpp tamit d'accord nañ ni yaa ngi liggéey monsieur le maire Ahmed Aidara Guédiawaye ñëpp nee nañ Ahmed Aidara fi mu teg tànkam baax na waaye nag kilifa yi nee nañ nga dimbali leen nga wutal leen foo xamante ni fii ba gàddaay baax na su boobaa dinañ fa mën a teg li nga xamante ni moom la ñuy teddee parce que tey ji ñoom bu ñu sañoon bëgguñu di am problème mu dépense bëgguñu di am problème boo xamante ni ëllëg ci bi dañuy toog di ko yalwaani ji kon defe naa nag doomu aadama boo ko génnee ci locataire da nga ko war mën a dugal ci kër. comme ni leen ko waxee woon nee naa leen ci kaddu askan bi la woon tey lii lañ leen indiloon ci kàddu askan bi askan bi ñoo moom seen kàddu lii moo nekk loo xamante ni tey jii moom la ñu wàccoon tey jii ci terrain bi indi leen ko sama gaay émission kàddu askan bi tey lii la woon di leen jaajëfal ba beneen yoon.